asalaamaaleykum mbokk yi tey nag dañu ñëw dugg fii ci département de Mbacké euh, di tàmbali di ziar sëriñ bi di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér di ko may mbokk yi ñu fi fekk yépp di leen ñaanal ñépp kooru jàmm. département bi ku ko dugg mu am yu sa xel dem moo tax li ñu bëgg jukki tey ci programme bi ak projet bi wax ko fii rek lañ ko mënoon waxee mu am njariñ li ñu bëgg mu am ko département de Mbacké. li fi nekk ci ay doomi aadama bokk na tey ci département yi gën a yaatu ci Sénégal jàpp nañu ni de bokk na nag département yi ci gën a dellu ginnaaw ci wàllu infrastructure ci ñàkk liggéey ak koom-koom ak jafe-jafe bépp fànn boo ko jël rek am na ay jafe-jafe yu dul jeex fii ci département de Mbacké tey tey waroon nañu bu ñu tuddee Mbacké wax ni bokk na ci gën a am alal ci réew mi yoo xam ne nit ñi ñu ngi dund ci nit dund wu ñoŋ wu rafet wu neex waaye tey yorin wu ñaaw ak politique yu ñaaw yi ñu yàgg a seetaan fii ci réew mi moo tax ñu gis fi lii ñu fi gis. loolu nag li ñu ci indi ci projet bi pour mën koo sottal bokk na ci li ñuy wax l'économie sociale et solidaire mooy loo xam ne lii dund askan wi lépp dañu koy delloo ci askan wi li ñëpp moom ñëpp mën cee jot. dinañ fi def fonds de solidarité boo xam ne bii day dajale nit ñi jigéen ñi liggéeykat yi def ko ay coopérative ñu ciy mën a liggéey dina am stratégie nationale de solidarité boo xam ne bii solidarité du ñu bàyyi rek bu politicien demee tibb ci keesu état bi ñëw joxe ñu ne ko yaa baax loolu du solidarité solidarité dafay nekk loo xam ne dañu koy organiser ba képp koo xam ne nii am na loo sa wareef ak sa yelleef ñu delloo la ko ci wàllu liggéey ak nga xam ni dinañu indi itam stratégie boo xam ne secteur informel bii ngeen di dégg nga xam ne nit ñi dañ ciy yàgg di ci liggéey sonn ci te du ñu am assurance du ñu am couverture bu ñu retraité du ñu am salaire du ñu am dara sonn ba ku sa doole jeex rek foofu nga yem danañ ko organiser ba nga xam ni bii dinañ ko professionnaliser leneen lii fi nga am fii itam te muy lu am solo ku fi xam-xam ni dëkku mbay la dëkku liggéey la danañu fexe ba li fi am ci meññeent am ay unité de production mooy petite et moyenne entreprise ak ay industrie yu mag yu koy transformer fii ci gox bi su ko defee marché bu mag bi nekk ci Touba ak Mbacké ñu ko fi mën a jaayee nit ñi am ci koom-koom te ku ne nga mën cee gis sa bopp. waaye kenn du tudd fii itam te tuddoo lii nga xam ne moom la fi Cheikh Ahmadou Bamba def mu di model économique boo xam ne moom la ñuy wax le modèle économique mouride. mooy liggéey bu baax a baax waaye du nit ki individu moom la ñuy jiital ndax. l'économie occidentale nit la jiital waaye fii dañuy jiital communauté maanaam nit ñi askan wi la ñuy jiital nit ki day liggéey pour askanam jëm kanam su ko fexee communauté bi daal di koy aar protégé ko kon loolu dafay modèle boo xam ne war naa dem ci réew mi fépp muy développement solidaire développement solidaire du ay ñaat tuuti ñooy am ña ca ëpp du ñu yor dara comme nii mu demee ci réew mi développement solidaire dañuy fexe ba askan wépp ku ci ne nga am loo xam ne lii nit mënu koo bañ a am ngir mën a sàmm ngoram mën a vivre ci dignité ak honneur